salaamaaleykum mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi safo di seetaan TMS TV dalati nag jàmm ci seen télévision bi feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ ngeen gis ne ni nag ma taxaw ak ki nga xam ne moo di Diop nekk adjoint sécurité fii ci kër gi li ko waral nag mooy Ramadan Moulé édition 2021 loo xam ne sëñ bi yàgg na ko def depuis plus de dix ans ngeen gis nag ren année 2021 premier jour koor gi ñu commencé liggéey bi ngeen koy gis noonu ci ginnaaw nit ñaa ngi ci mburu mi nit ñaa ngi ci mayonnaise bi beurre bi chocolat bi tàndarmay répp rek ngir jaamu yàlla yi daal leen euh, taxawu jox leen ñu ndogu à temps yóbbu ci jàkk yi ñu nekk ak joob dañ koy jox kàddu gi mu expliquer ñu exactement depuis ñu commencé liggéey bi ba léegi naka la fa demee. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp du nuyu TMS di nuyu kilifa gi di ko siyaar Saliou macha allah di leen jëfal di leen wax baal leen àq ñu ngi seetaan ñu ngi leen di baal àq di leen jaajëfal di leen bëggee bu baax macha allah. Hmm. léegi gis nañ yéen a ci mburu meeg yooyu naka leen demee eh, organisation bi ndax mën nga ci expliquer tuuti. waaw Saliou lii moom yaakaar naa ne miin nañ ko tàmm nañ ko. macha allah chaque année dañ koy def mais daaw moom defuñu ko parce que corona bi moo taxoon defuñu ko. boo xoolee daawati géej rek euh, lu ñu mujjee génne génne nañ 39 millions. macha allah lépp ci weeru koor gi min nañ ko tàmm nañ ko chaque année dañ koy def. macha allah boo xoolee bagage yi ñëw na. mburu yaa ngi ñu ngi koy préparé. boo xoolee jàkk yi nekk suñu ginnaaw yëpp ñu leen di servi ñoo leen di servi ndogu macha allah ak doomu aadama yi nga xam ne ñoo fi ñëw ak oto yi xam ne ñoo fi jaar ñëpp dañoo préparé pour servi leen ndogu macha allah mburu bi dama gis ñaata kiiw mbagetu pain ngeen commandé. waaw instant bi commandé nañ 300 pain en attendant nii pour l'instant. 300 mhm. pain mais commencement la quoi kon dañuy a dugg mbirum café mi aussi taxaw na ak meew mi. waaw boo xoolee mbirum café bi taxaw na mu ngi suuf après xam naa boo leen demee dañ koy fekk ci place. Mhm. meew bi tamit mu ngi fi lépp mu ngi fi. Mhm. maanaam lu waay soxla ci wàllum ndogu rek. sëriñ bi euh, génnee na ko teg ko ci boo xoolee koor gi ni génneegum na 20 millions en tanda waaw 20 millions lañ génneegum en tanda boo xoolee boo wàccee ci magasin bi suuf boo xoolee jën nañ fa ay tonnes ceeb ak duuli nag lépp li nga xam ne daal soxla nañ ko ci weeru koor gi ak nit ñi nga xam ne war nañ ñëw fi ñu jox leen suukaru koor macha allah. macha allah ñu ngi lay jaajëfal xam naa dañuy ànd ak yow rek wàcc ci suuf nga woon ñu café yi nga xam ne préparation bi nu mu demee donc des leen ak ñun mbokk internautes yi mbokk téléspectateurs yi di ngeen xam lépp li nga xam ne mooy xew fii ci cabinet médical Thierno Mouleye Sow ci édition 2021 Ramadan Mouleye waaw Saalum yaakaar naa ba léegi lépp di si si si Ramadan bi boo xoolee nag bee dem moom lañ jënd nag bee moom lañ jënd boole koog nag bi pour si si koor gi parce que bi moom woo mu ne ma jóob ah koor gàcc ñi dañoo war a lekk lu baax mu ne ma nag jox ma xaalis bu bëri ne ma demal nag nga jënd beneen nag ñu dolli si nag bi ku mun koo jox jaamu yàlla macha allah amoon na yeneen ñetti xar sax yu ñu jëndoon ñaari xar yi jox na ko benn bi goroom benn bi mu jox ko yaayam bii tamit mu ne si kër gi la koy bàyyi macha allah lépp si weeru koor gi. Diop euh, gis na yéen ngi teg cin bi matt yi macha allah lépp kii ngeen di préparé kafe bi nu mu fa demee nan ngeen ko bëgg a defaree. waaw euh, Saliou ba léegi ñu si café gi nee naa la meew am na fi café am na fi lépp lu waay soxla si wàllu ndogu li boo ñëwee fii di nga fa fekk macha allah parce que boo xoolee jënd nañ fu mu nekk ni en attendant 50 kilos jënd nañ ko ëpp na loolu sax maanaam tegum nañ ko en attendant tamit pour kafe gi ko bokk ak meew bi macha allah waaw gis nga ñu ngi si café gi sëriñ moo nekk nii si café gi macha allah waaw waaw waaw maanaam koor gi ba koor gi jeex waaye nit bu fi ñëw incha allah di nga ndog ba ba ba ba dégg jàmm waaw. donc daal ni ngeen ko fas yéene defee pour café gi meew gi moom kan moo koy defar. meew du xam naa moom tamit ñu ngi koy defar si kaw ko waaw meew baa ngi si kaw mais café fii lañ koy defaree quoi waaw. ok jaajëf kon mbokk internet yi nee na ko déggandoo dégg ngeen Diop li muy expliqué euh, ñëpp ngi jàpp ci liggéey bi commencé donc defar café yi meew yi aussi ñu ngi koy defar mbuur yi pare na tàndarma bi pare na defe naa ne képp ku fi ñëw di nga dogu si jàmm sans problème donc noonu lay fii demee ci Ramadan Moulé donc avec Thierno Moulé Sow le khalife général des djinns fii ci cabinet médical euh, Thierno Moulé Sow en face VDN 3 en face terrain jamono ngeen gis nag agent sécurité ñëpp ngi jàpp ci liggéey bi macha allah ngir rek liggéey bi mucc ayib yéen a a a ngi nii macha allah ak sunu caméraman bu mucc ayib di Bassène jóoba nga nale ak ñeneen ak ñeneen lépp rek ngir liggéey bi jaar yoon ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax na ngeen des ak ñun parce que nag commencement bi la nii nit ñi ndogu bi jotagul di ngeen gis ñi nga xam ne ñëw nañ ndogu seen impression la lañ xalaat ci loolu loolu yëpp dinañ leen ko taataanal defal leen ko ci TMS TV télé bi nga xam ne mooy feeñ lépp li nëbbu làmbook njariñ Donc vous l'avez suivi, chers internautes, chers téléspectateurs. Donc vous avez vu les travailleurs de la maison qui sont en train de s'affairer sur les pains tartinés de beurre, de chocolat et de mayonnaise, tout simplement pour permettre aux fidèles musulmans de venir rompre le jeûne à temps avec le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle. Vous savez, le Khalif général des djinns a, mis, du moins euh, la main dans les poches tout simplement pour sortir beaucoup d'argent et permettre aux fidèles musulmans de rompre le jeûne. Donc il s'agit d'une édition particulière, Ramadan Moulay 2021. khalife général n'a pas lésiné sur les moyens, pour permettre aux fidèles musulmans de rompre le jeûne à temps et d'avoir vraiment tout ce qu'il faut euh, donc avec le khalife général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle. Vous le voyez, il est en train d'arriver dans sa voiture rouge et noire. Il est très bien habillé en caftan donc blanc avec son chauffeur Riyad Ma qui est en même temps le chef euh, donc des agents de sécurité. Vous le voyez. Hi, Il est en train de superviser les gens qui font le café, les autres qui donc euh, euh finissent euh, les pains, qui donc euh, tout simplement mettent tout simplement les dates dans les sachets pour permettre aux fidèles musulmans d'être servis, vraiment d'être très bien servis. alors mbokk intondeurs yi mbokk téléspectateurs yi set safoo di seetaan TMS bi comme ni ngeen ko gisee ni ñu leen ko doon waxee depuis le début yéen a ngi doon gis ñuy jël euh, donc ay image ci wàllu mburu meeg ndogu meeg yooyu ndeyu mbili gi nag mu ngi noonu ki waral mbaboor bi mooy Thierno Moule Sow la xarit général des Djinns egsi na nag ñëw xool gars yi nu ñuy liggéey xam naa dañ koy jébal kàddu gi rek mu expliqué ma ànd ceeg sama naataango Ngone ja ñu bàyyi xalif général des Djinns mu expliqué li nga xam ne jot na ko def doon ko def depuis plus de dix ans mu li nga xam ne moo ko waral moom muy def loolu chaque année expliquer d'abord ñu door a continuer waxtaan waaw macha allah alhamdulilah rabbil alamin gannaaw ba ñu sant yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi salallaahu alayhi wa salam di nuyu mbokku ci mbokku taalibe yi di la nuyu Saliou Samb Ngone macha allah ak Bassène ci caméra bi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk fii équipe bi yëpp macha allah ñoom ma ñoom Diop ñoom Alseeni ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di jàpp ci liggéey bi defe naa nag tey mooy première koor gi macha allah gis ngeen noonu la ñoo ngi tàmbali mbir yi comme ni ñu ko waxee woon chaque weeru koor niñ ko daan defee di joxe ndogu rek macha allah lépp nag dañ ko def ngir liggéeyal yàlla ak yàlla ak yonente bi defuñu ko ngir ngir tal ngir dara defe naa ne yàgg nañ di ko def kon nag bismillah ndogu yaa ngi noonu ñoo ngi koy préparer vraiment préparer pour yóbbu ci jàkka yi ak jumaa yi ak dëkkandoo yi ak ñi nga xamante ne dañuy faral di romb fii macha allah tey mooy première bi nag ñaan nañ yàlla euh, topp ko ba weer bi dee incha allah defe naa euh, xam naa ne taalibe yi dinañ ñëw mën a jàpp ci liggéey bi aussi taalibe yi taalibe mu la yëpp tamit woo nañ leen nañu ñëw jàpp ci liggéey bi tamit comme daawaati géej macha allah association bi ñoom ñoo ñëwoon jàpp ci liggéey bi aussi association Thierno Moule Sow bu Sénégal nga xamante ne Alseni Silla moo ko jiite taalibe yi woo nañ leen nañu ñëw jàpp ci liggéey bi tamit macha allah nañu ñëw jàpp ci liggéey bi pour ñu mun a préparer mburu yi ak yooyu parce que day jël temps quoi. Mhm. xam nga dafa mhm. gis nañ ne def ngeen les moyens gis nañ mburu mi macha allah bëri na trop. chocolat tàndarma. ndax mën nañ nga expliquer eh, un peu li nga xam ne jot nga ko frais wala jot nga ko commandé ci wàllu boobu. waaw macha allah li ñuy jot commandé boo xoolee à près nii. Euh, war nañ lekk lu ëpp dix million ah d' abord. Mm-hmm. Mm-hmm. ah war nañ lekk lu ëpp dix millions calculer guñu nag. ndax dañuy sëq rek di génne. Mm-hmm. instant bi nii xam na ne war nañ lekk à peu ay douze wala treize million ñoo ngi jënd gis ngeen ceeb yeeg ñoo ngi fi diwlin yeeg yooyu. chaque jour nag dañuy jënd rek macha allah dañuy jënd. ak suukaru koor gi. macha allah vingt millions yi xam naa ne moom li ci li ci des bëreetul. bëreetul macha allah waaye nag comme ni ñu ko waxee woon bu jeexee ñu dolliwaat. ci kàttanu yàlla léegi nag tey mooy premier jour bi. léegi nag euh, oto TMS bi aussi moom la ñuy jël yàpp ko yàpp ci affaire yi pour daw yóbbu ko ci jàkka yi. ak ci jumaa yi macha allah kon nag ñoo ngi woo taalibe yi nañu ñëw jàpp ci liggéey bi. Mhm. nañu ñëw jàpp ci liggéey bi ñu mun a def préparation ndax nag. taalibe tame loolu lay jëriñ sëriñam mhm. laajuñu la dara na nga ñëw jàpp ci liggéey bi barkeelu tame kon mhm. taalibe yi woo naa leen na ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi parce que nag macha allah daaw noonu la taalibe yi dañ ñëwoon jàpp ci liggéey bi kon nag woo nañ taalibe yi nañu ñëw jàpp ci liggéey bi ñu mën a préparer affaire yi pour mu gaaw mhm. ndax bu ñu yéexee rek mën na tardé te bu tardé aussi baaxul man maa ngi ni bàyyi sama kër ñëw rapidement pour mën a bokk ci affaire yi yooyu mhm. mburu ga mburu sax jëndaguma ko gis nga kon xam nga ne maa ngi ñëw pour xool jaamu yàlla yi nan la ñuy ndogoo mhm. macha allah waaw macha allah alors ñu ngi lay jaajëfal xam naa di bàyyi rek nga xool bagage yi café yeeg yooyu gaa yaa ngi ci café sëriñ ñoom ñoo nekk ci café gi comme d'habitude rek comme daaw nii rek macha allah. salaamaaleykum mbokk téléspectateur yi baaxoo di seetaan TMS TV ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay daal di ànd ak ki nga xam ne mooy xalif général de jinne l'empereur le king of the king la solution tubaarikàlla macha allah suñu waajaa ngi noonu borom kun bi nga xam ne moo jubóo borom lu mu ko ñaan mu may ko premier jour koor mi ngi nii ah? Thierno Moule Sow gis ngeen ko mu débloqué ay yu bëri démb li ñu jot jënd yëpp presque 13 million la toll maanaam pareeguñu ñu ngi nii café yaa ngi ni meew yaa ngi ni yëpp nag jaamu yàlla ñoo ko tax Diop macha allah fépp fu waay nekk ci àdduna bi ñu ngi lay woo di la invité pour nga ñëw ndogu si ànd ci ki nga xam ne mooy xalif général de ne macha allah xalif général ngi nii ndogoogul sax këram waajagul dara macha allah kon nag xalif général ñu ngi laaj tey ban ban yëg-yëg nga am lu toll premier jour koor macha allah nga def teraanga bu toll nii àdduna bi taxaw te nit ñaa ngi nii ñu ngi commencé ñëw jëm ñëw ndogu si ak lu baax lii nga def ci réew mi. waaw macha allah ñi ñaa ngi jege si nañu jege si comme ni ma leen ko waxee rek gënuñu leen lii dañ koy def rek ngir liggéeyal yàlla ak yonente bi defuñu ko ngir gën nit ki wala dara ku bëgg ndogu na ñëw ndogu macha allahu mu rees ak jàmm dañ ko yàgg di def nag macha allah defe naa ñi ñaa ngi jege si te heure baa ngi ñëw te gars yi ay jàmbaar la ñu gis nga commencé nañ nekk ci affaire bi tey nag équipe bi bëriwul mais xam naa ne fii ak suba équipe bi dina gën a bëri première koor gila la mais macha allah gis nañ ne yéen a ngi ci liggéey bi sécurité yi ñoo ngi ci macha allah kon nag ah li ñuy wax rek kontaan rek sant yàlla na ñëpp bu ñu mënee ñëw ndogg si nañu ndogg si te xam ne fii tout le temps day am embouteillage mhm. am na ñu bëri ñi nga xamante ne heure ndogg fii la leen di fekk kon nag macha allah bu heure bi jotee rek comme d'habitude rek ñu jox oto yeeg yooyu macha allah. waaw macha allah comme ni ko xalif général waxee macha allah génne budget bu bari ndax jaamu yàlla yi def ko ndax distal def ko ndax dara waaye def ko li nga xam ne ne mooy dimbali jaamu yàlla yi macha allah euh, am na ñoo xam ne embouteillage bi da leen fi fekk te dëkk bi dafa metti am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw macha allah ba tax mu génnee lu bëri ci wàllum ceeb wàllum diwlin wàllum euh, meew café lépp pour jox ko askan bi ah, macha allah ñu leen jox dig daje lundi le 19 avril fii ci biir kër gi na ñëpp ñëw jël macha allah ñi ñi ngi commencé di ñëw di jël ci seen ndogu macha allah ndax lii dafa baax def ko pour dara me day jàngale. parce que tey multimilliardaires yi multi multimillionnaires yi tey bu ñëpp doon def di génnee di def ci askan bi yaakaar naa ne réew mi kon heure bi avancé na kon nag jaaraama kenn mu la saw kenn moom macha allah. borom kun la xalif général des jinne nii lay demee ci saa su ne fii ci TMS TV gaa yee ngi ñëw ñoo ngi ndogu kon nag ñu ngi leen jox dig daje léegi. léegi léegi ñoo ngi dellusiwaat ci ndogu li ànd ceeg waa TMS TV. salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu TMS TV comme ni ñu leen ko waxee ñu ngi ci ndogu li premier jour ndogu li ñu ngi fi ci kër buntu kër xalif général macha allah ni ñee ngi commencé jëw nànk-nànk ma daal di jàkkaarloo ki nga xam ne ne euh, xale bu góor bi ma jàkkaarlool ñu gis ko moom it mu ci suñu invité yi ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ñëw ndogu si soxna euh, sëriñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar. ah ñu ngi delloo bu wér. waaw dëkk foo jóge. fii Unité 9 laa fii. Ah, unité gis nañ la tey jii fii macha allah ñu ñëw bokk suñu ndogu ak lii yëpp lan ngay wax xalif général day jinne ah sant <laughs> gisee ndogu li yow daa mel ne sama mbokk séeréer nga li sama mbokk séeréer moom xam naa ne koor gee la jàpp ak xiif beeg yooyu noo gisee lu baax lii li mu def jël ay ndogu di ko jox doomu aadama yi. Ah, li moom lu baax la rek. waaw allah. Hmm. dàgg ngaa ñëw ndogu ci si moom wala tey nga ñëw. tey rek laa fi romb. waaw d'accord waaw kon noo gisee lii daal dal na sa xel daal. waaw dal na sama xel bu baax. waaw kon looy xalif général de Djinné di ko ñaanal. ah yal na yàlla guddal ay fanam rek. yokk ko <laughs> waa waaw macha allah comme ni ñu ko waxee rek xam nga sama mbokk séeréer yi bu ñu xiifee duñu mën a wax ma jaal ci sama beneen mbokk séeréer xam naa ne xiif bee koy bëgg a rey bi maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax fan nga jóge maa ngi jógee waaw di rafetlu rek li nga xam ne sëñ bi def na ko rek. Mhm. di ko ñaanal lu mu bëgg ci xolam yal na ko ko suñ borom defal. Mhm. waaw borom doole ñu doon def nii. Mhm. yaakaar naa ñi nga xam ne dañoo ñëw ci dëkk yu mel nii. duñ mën di tumuranke quoi. mais ñu koy ñaanal li mu bëgg ci xolam. ci barki weeru koor yi yal ko ko suñ borom defal. ci daraje Moustapha sallallahu alayhi wa mais kontaan nañ ci bu baax a baax a baax ñoo ngi koy ñaanal nag lu bëree bëri. waaw man moom c'est la première fois may wooree fii sax Dakar. waaw di rafetlu it yéen it seen waay bu baax a baax. di leen di ñaanal seen télé bi yéen li ngeen bëgg ci télé bi yal na leen ko suñu borom defal. ci daraje Moustapha sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. waaw Amine kontaan nañu macha allah ma daal di am tamit keneen ku toog nii macha allah sama beneen xarit bi comme ni ma leen ni ma leen di tooñee rek sama xaritu séeréer <laughs> dañ bi na nga def maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax tey ñu ngi gis fii nga ñëw ñu partagé ndogu bi di la nuyu di la ziar bu baax a baax. li moom lu baax la quoi. Mhm. man de dinaa fi ñëw dama fi ñëw jour bi ne ñëwoon naa fi quoi. Mhm. waaw moom da nga koy ñaanal rek ñaata li nga ko mën a def quoi. d' accord xalif général kontaan nga ci moom. naa si bu baax. Mhm. maa ngi koy ñaanal lu mu bëgg yàlla na ko yàlla. amiin amiin loolu moom la xam merci beaucoup kontaan nañu tamit ñu ñaan ndogu jàmm rek comme ñi nga xam ne ne suñu mbokk yi ngay laaj macha allah ñu ngi nii rafetlu nañu teew bi ñu ñëw ñun ñëpp bokk noo ndogu bi macha allah bisimilah rahmaani rahim kontaan nañu. ñaanal bu baax. donc euh, at bu nekk muy gënd yokk. incha allahu rabi mu di ay loo xamante ne dafay wéy. voilà di ñaanal yàlla donc euh, ñi initiateur projet bi yàlla dafa leen jàmm. dafa leen wér dafa leen sutura te tamit euh, jaamu yàlla bi ñuy def yàlla yombalal leen ko incha allahu rabbi jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal donc noonu ngeen ko déggee donc chers internautes chers téléspectateurs vous nous suivez sur la TMS TV la télévision qui montre ce qui est caché avec Thierno Moulé Sow le khalife général des djinns et nous sommes donc au premier jour de Ramadan vous voyez c'est la coupure les gens sont en train de distribuer le ndogu pour permettre à tout musulman qui est à côté de général des Djinns, le roi de la médecine traditionnelle. Vous les gens ont apprécié, ils sont vraiment qui rentrent, qui ne peuvent pas être chez eux à temps, si on leur donne quelque chose euh, donc qu'ils vont utiliser de la médecine traditionnelle. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. We are with the Khalid general of the Djinns and you can see people mean, the break for the break time, they are giving breads, you know, coffee, and then some kind of, uh, you know, milk, so as to permit everybody to just break, you know, his or her just uh, fasting on time. That's what is happening. People are appreciating what the Khalif General of the Jinn is doing right now, and this is something really wonderful. You can see people here sitting here and there, you know, breaking on time with us, and that's what the Khalif General of the Jinn just, just did it, uh, just wanted to do, and then I think that it is really something wonderful. It is happening

waaw doora rek sa waay nice macha allah taw feex la waaw yëpp xam na mu waaye gis ngeen mbokku téléspectateur yu TMS TV nii lay demee ci saa su ne gis ngeen ndoko li lañ wax ak Thierno Moule Sow la xalif général des jinne macha allah taliban ngi nii macha allah def katu lu baax. mu ngi nii di def lu baax ci réew mi macha allah ñoo ngi nii gis ngeen tey sama déguisement bi macha allah ku ma gis xam nga ne tey moom ndogali la macha allah taliba ngi nii mbedd maa ngi nii macha allah di joxe ndogu ante la xalif général day jinne ah. borom kun macha allah nee naa leen bu milliardaire yëpp meloon ne moom wala millionnaire yëpp meloon ne moom kon yaakaar naa réew mi ndool jóge na fi ci lu baax 20 millions la jël dóor ci daabal ne à chaque fois mën nañoo yegg ba prolongation kooku mooy xalif général day jinne ñoo ànd ak équipe bu am solo bi ñuy joxe ndogu fii ci mbedd bi kon nag lii macha allah am na solo xalif général day jinne macha allah dama ne ndogu li fii lay demee ci saa su ne fii kër xalif général day jimi na ñëpp ñëw na ñëpp teew macha allah tey ndog spécial ndog premier jour ramadan kon nag fii lay xewee macha allah ñu ngi woon képp askan bi ku jógee parcelle ku jógee Cambérène ak fépp ñu ngi leen invité fii kër xalif général day macha allah ñi ci tali bi embouteillage mi ngi noonu sama mbokku taximan baa ngi noonu daal di droité macha allah xalif général day jinne macha allah ñoo ngi nii ci saa su ne ma daal dem ci xalif général Ndiaye Djiné macha allah. mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV comme ni ngeen ko gisee depuis le début bi ñuy waaj ah, di defar mburu mi chocolat bi pain bi beurre bi ñeen a ngi gis noonu gars yi macha allah ñëw nañ wuyu si ñu ñu ngi ndogu donc defuñu ko pour ngistal mais def ko rek ngir jaamu yàlla xalif général Ndiaye Djiné moom dafa bëgg vraiment ñëpp ndogu si jàmm. ndogu li macha allah tey 300 dañu renforcer waat beneen équipe bi dem nañu ñooy wër ci jàkka yi ak jumaa yi di ko joxe ñun ñoo fi nekk di ko joxe fii ci mbedd mi kon xale général day jinne macha allah ñu ngi lay bàyyee kàddu gi premier jour waaw jërëjëf soxna Ngoone macha allah vraiment di kontaan bu baax a baax ndax dañoo am fer ak ferte ci lii ndax yàgg nañ di def lii ndeysaan dañuy kontaan macha allah instant bi ndogooguñu nee naa waa kër ga nañu ndogu maa ngi ñëw gis nga yéen tamit ndogu woo leen a ngi jox jaamu yàlla yi ci tiyaaba bu rëy la vraiment yéen ñëpp ndogu woo leen macha allah ñoo ngi lay remercier yow tamit tey sa jour liggéey sax mais ñëw nga jàpp ci liggéey bi ak euh, Saliou ñoom ma Naar Diop équipe bi ah ñoom Bassène ñëpp ah. waa kër gi yëpp vraiment maa ngi leen di ñaanal jàmm xewal li mooy Sénégal lii mooy adduna bi weeru koor nii la partagé la lépp lu ñu am rek na ñu ko jox jaam ñi ñu lekk ba suur ñun ñu doog a lekk ndax doomu aadama noonu la war di doxee macha allah kontaan naa bu baax a baax lii nag jour bi la mm. ñoo ngi wax yëpp nag nañu ñëw jàpp ci ci ndogu bi taalibe yi taalibe Thierno Moulé nañu ñëw jàpp ci liggéey bi nañu génn kër yi ñëw jàpp ci ndogu bi parce que macha allah xam nga tey première bi la defe naa ne chaque jour nag embouteillage day gën a am macha allah vraiment kontaan nañ gis nañ oto TMS bi Diop ànd naag euh, Serigne euh, yab nañ ay kii bari pour yóbbu ko yóbbu ko ci jàkka yi ak jumaa yi loolu tamit lu rëy la kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax di ñaanal ñëpp jàmm vraiment kër gi seen kër la heure ndogu bu jotee kenn ku ne mën na ñëw ndogu fi macha allah kon nag kontaan naa bu baax a baax xam naa ne du yàgg man tamit ma daw kër ga mën a ndogu ji macha allah na ñëpp ñëw ndogu si fii. macha allah comme ni ko xalif général day jinne waxee macha allah mi ngi nii toog génnee xaalis bu bëri ni ñaa ngi gën a ñëw nit ñaa gën a ñëw macha allah jox leen ko ndogoom macha allah mi ngi ni jox nañ la waa d'accord nit ñaa ngi nii di ñëw. macha allah ni ñi taxaw ci biir si waa biir si ñu ngi noonu macha allah xalif général day jinne yo nag. Euh, maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax tur beeg foo dëkk. waaw ñun Fouta la ñu dëkk. Fouta waaw waaw Fouta waaw ñoo ngi am kontaan bu baax. waaw ñun moom toujours damay wax rek Thierno Moule moom dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla guddal fan wi yàlla yokk wér gi barke Sey Ibrahima macha allah ñoo koy ñaanal ñun moom fu ñu toll rek ñoo ngi lay ñaanal ndax ñun moom toujours ñu ngi ci xool ci YouTube bi ñi ngay liggéey waaw ñun moom dañu lay ñaanal yàlla rek yàlla guddal fan wi xëy na nag mu néew ñu wax mais bu ñu naan wax moom dinañ wax lu ëpp lii waaw ndax toujours ñu ngi dugg si YouTube bi ñu ngi gis vidéo yi ni ngay liggéey macha allah waaw ñoo ngi rafetlu bu baax di am kontaan bu baax si ndogalu macha allah neex na neex na trop macha allah di la ñaanal yàlla rek lépp loo bëgg rek si liggéey bi rek fépp foo ci bëgg a yegg rek yàlla defal la ko barke Seex macha allah kontaan nañ trop macha allah. mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi yéen a koy gisandoo ngeen gis nag nit ñaa ngi noonu ndogu nañ ci jàmm macha allah nit ñi ñëw nañ wuyu si jox nañ leen ñu ndogu ci jàmm ñëpp kontaan ngeen gis nag xalif général di jënd mu ngi noonu moom tamit bi nga xam ne xaar na ba nit ñi ndogu ba pare mu ngi dellu këram pour tamit moom tamit mun a ndogu ñu leen di jox dig dajee nag ci yeneen édition ci beneen jour macha allah ci donc ndogu Moulé Ramadan Moulé avec le Khalif général des djinns alors chers internautes chers téléspectateurs comme vous l'avez vu alors les gens ont fait la coupure donc euh, dans les règles de l'art vrai bien très très bien même et donc euh, le Khalif général des djinns qui a eu à assister à la coupure du jeûne avec les gens maintenant rentre chez lui dans sa voiture tout simplement pour couper le jeûne à son tour ladies and gents dear followers you have then seen what people were doing here. They were breaking their fasting day with us, and that was really nice. He's just going back home so as to break his fasting day, just like everybody. So, thanks following us on TMSCV, your favorite channel.